di am tuuti ay leeral yoo xam ne dañ koy def mu jëm ci li nga xam ne mooy élection yi ñu nekk ndax ñëpp xam nañ ne euh, sëñ du bari Doly fii ci Touba euh, nekk responsable politique euh, APR nekk nit koo xam ne nii ñëpp xam na ne tey lii ñu nekkoon di liggéey ci élection présidentielle yi muy son yi fii lan ko créé woon ci biir kër gi ñu taxawal ko fii ma dem gis euh, far ba mu wax ne président nee na sëñ du dellul tubaa boo delloo Touba nga jéem a xool naka ngay defar def ba defar parce que boo ko defut yàqu gu rëy mën naa am ma ñëw fii convoqué mboolem responsable yi nekk ci Touba sama biir kër ñu nekk fi parce que lu toll ci un mois ñu jéem a waxtaan ci dëkk bi nan la ñuy def. ci ay soon yi ba jëm ci war a mën a liggéey ñu di ko tënk di ko tënk ba weer wi di mat ci leen def benn jubo boo xam ne genn guddi nekk nañ fi ba deux heures du matin man ak meer Abdou Lahad ak maam Xari Mbàkke ak Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ñu waxtu woowu fekk Abdou Lahad Sadd yàlla def mu accidenté assemblée waaye ñu nekk ak moom par téléphone bi ñu paree ñu dem ci moom fekk ko fa mu tëdd tënk ak moom ñu wax ne zone yii di Touba créé nañ ko mu nekk dix lan njëkk a créé Mambay ñang kër ñang wax ne soonu kër ñang nañ ko def benn ñu yokk ko ci mu nekk fukki zone ak benn ñëpp xam ne ne man ma jiite xaayare gi ndax bi demee ba tënk ñu ne kat euh, man bu ma jiite maire bu mu jiite Abdoulaye Gaye Ndefane ma bu mu jiite maam xari bu mu jiite Abdoulaye Sadaga bu mu jiite nan ko def ñun na nekk ay saas. saas yooyu contrôler li nga xam ne mooy son yi man yàlla dogal may contrôler xaayare ak nit ñi yaakaar naa lépp rafet na son yu bari am nañ ay problème yoo xam ne ci man la naan daw sax ma koy lijjanti ba mu des son bii di xaayaram lépp lu ma def ak ñoom dama ko teg ci kaw taabal ba ni élection yi jeexee yaakaar naa kenn amul loo ma jamee ñu dox tuuti parce que li may wax dafay doon lu leer. ah bi ñu ba jub élection yii ñu jub naka jekk corona bi jaar na fi xat-xat yu bari jaar na fi korite gi ñu weesu def naa fii social boo xam ne loolu ne séddale naa ko ci dëkk bi ak quartier bi loolu kenn mënu ko weddi loolu lépp ñu koy jëfit ngir lu lu war a def la ci social ñu dekk dëkk buy yéeme ndax dëkk bii di Touba day spécial maire bi fi nekk sëñ bee koy tànn ca sëriñ taxaa jël dëkk bi dénk ko sëriñ Sidi Mbacke. yàlla nañ fi yàgg lool ñoom ñaar ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ak mboolem taalib yi mu denk ko ko ko sëñ sëñ Sidi moomu mooy tànn waxtu wu nekk ko ko neex mu tànn tey Abdoul Ahad kat teg ko ci sun kanam pendant des années ñun ñii ci dëkk bi leen dëkk am nañ fi wàllu comme ñëpp waaye kenn mu mësatu dégg sama gimiñ mu yëkkati di wax ci commune bi ndax lan war ma ak kilifteef gu ma def sëñ Sidi rawatina ndongu ndigalu sëñ mu Muntaxa Xaadimu Rasuul waaye nag am naa ci lu ma war a wax ndax ci dëkk bi laa bokk waaye ma téye lépp garde lépp di wax na sama xarit Abdoulaye Ka na yem fi mu war a yem soon bii di rek baa ko jiite woon di ko contrôler man nag damaa wax waxi kaw ak waxi suuf samay wax day nekk waxi kaw koo mën a doon bu ma jàkkaarloo yow ne la maa ngi ñëw ñëpp danañ xam ne ne maa ngi ñëw ndax mënu wax di wax ci suuf ca la ma wax ma continuer di ko wax bu ko arrêté wut sëñ Sidi moom danaa ko warmaal teg ko fale waaye danaa jàkkaarloog moom parce que nag kenn moomu ma ci dëkk bi am naa fi cër bu ni lim kër yuuf jumaa yi sama maam bokk na ci kër yuuf jumaa yi di Tuubaa ji am na ci leneen loo xam ne tamit am na ci tey dëkk bii bu doon wate ay li li ñuy wax ab mairie ab commune comme yëpp tey ñii damay taxawal sama ndënd comme ñëpp sama ndënd ñëpp waaye nangu li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi ma di ko wax ne ko na arrêté man sëñ Modou Bara Doli amul lu may ragal amul lu may daw ci bu dee ay wax la ak ay gone yoo jël di xool ñi nga xam ne seen i làmmiñ lan yor di leen def ci ay commune di ragal di daw di daw sëñ Modou ragalul ku yàlla bind ku ko wax lu baax ku ko wax lu bon ndax ñëpp xam na ne sama der bii moom bu doon der kiis der kiis na waaye ma jël yàlla teg sama kanam parce que xam naa ne yàlla rek muy ki wér kon loolu nañ ko arrêté ci bëgguma jàll ndax ku ma jàkkaarloo ku nekk bu ma jàkkaarloo yow nag lii may wax nag képp ku yëkkatiwaat kii danaa jàkkaarloog moom bu boobaa ci duma ci bañ dara son bii de xaayara nañ ci génne seen loxo tey yi tey liste bii de liste département bi bu ci sama tur nekkutoon bu boobaa sama yoon nekku ci mais dafa ma dama cee engagé joxe sama carte d'identité sama tur nekk ci. président nag maa ngi koy wax ne ko musuma mu tànn ma ma ma ñàkk nangu ñu bari fekk nañ fi mu tànn Abdoulaye Gaye Fatma ma nangu. li nga xam ne mooy référendum bi ñëw mu tànn sëñ Sidi ma nangu tey jii mu tànn Matar Diop ma nangu te kenn ku ne xam ne di dëkk bii bu ne wax naan opposant bi vrai opposant yi fi nekk samay rakk lan ci maa leen jàngale noonu entraîné waaye te kun fi tànn ku ne nangul naa ko waaye li ma du nangu nag ay gone di ma këlëkëlee du ma ko nangu de ndax am na ci gone yoo xam ne nii am na ci ñenn ñoo xam ne bu ñu delloon ci suñu cosaan fan dëkk muy njëgeej yaakaar naa dañ may feesal ay gàtt ak di ma feesal ay ay nag. loolu nag nan dem wax ko seeni i waajur ñu wax fan yam ñu yem fa ñu arrêté li may wax nag samay wax ju leer naññ la nit ki day xam boppam xam fi mu war a tàmbale ak fi war a yem bu xamul boppam nag ñu wax ko boppam. li ma koy reproché mooy daa am gone yu nekk fii di yëkkati son bi di jaxase ci son boobu dañ ko tënk ci ay kayit ma formé ko fii ci sama kër laat ñëw ci sama kër gii. ñoom ñëpp ñu dajaloo ci sama kër gi ma formé ko ñu taxawal ko ba taxawal ay son son yooyu nag li fekk tasuñu ko mënuñu ne bu xaayir bi dañ koy tasaat di falaat ay biro moom it mu nekk ci suuf di wax ak ñoom ci suuf di wax ak ki ni wax soxna Ndiobo Mbacke soxna Ndiobo suñu bàjjan la rus nan la waaye arrêté affaire yu meex sedd rey loolu dama koy wax man du may wax du ma ko lëndam di wax ci suuf di di yooyu amul solo nit ki day wax lim gëm. loole mu ànd nag di wax ak moom ci suuf mu di ko mu leen di jàppale ci suuf loolu bu ko arrêté dana jàkkaarloog man parce que man kenn du dugg ci samay bagage gis ak li ma jàngat bëgg a xar ko lan ni def ndax ñenn ji buñ ànd ak sëñ Modou am ñenn ñu ñuy loxol xal kay lool lañ ko bëgg a def ci buñ ko defee son yëpp la ñuy